Euh, Moussa Ndiaye euh, man maay président euh, kii académie football club. waaw être que football académie dafa nek Ben entité bo xamné dafa nek fi ci biir euh buñ créé récemment avec le coach Mamadou Dieng licence UFAA euh, bo xamné dafa nek vingt ans mu ngi dans le milieu du du sport qui est qui est un camarade nek Ben Ben sportif de haut niveau là mu ne il faut nous créer quelque chose dans Mbour et ci loolu ci loolu la ñu jógee ñu ne il faut ñu jàpp ci ñun ñëpp ñu jóg euh, pour que euh, euh, waa Mbour sant seen dans le milieu du foot bien que il y a des clubs et tout mais mais ça vient renforcer li nga xam ne moo fi nekk. waaw waaw waaw xam jafe-jafe moom mënta ñàkk mënta ñàkk mais lu lu si nekk rek dafa am ñu ko moom kii day def li kii def li kii def li ku si nekk bu jappé fu fi nga xamné ne fa la war japp yakar nañ né dinañ am euh, résultat yi nga xamné mom lañ bëgg inshallah wa on a on a on a ciblé les jeunes les jeunes euh, juróom-ñaari at juróom-ñaari at ba fukki at ak juróom-ñaar wa ñooñu ñoy euh, la formation la formation dafa am deux volets dafa am volet internat am volet externat on a commencé par le volet externat. bi nga xam ne xale yi ci bit lañ leen jëlee seen biir kër lañ leen jëlee di ñu ñëw entraînement mais aussi fii le mois d' octobre dañoo dafa naam un internat fekk école tijji là ñu xale xale yi ñu interné leen ñu nekk vraiment dans le milieu du fout di man a entraîner normalement. waaw ni ni ñaa ngi ñëw parce que chaque jour ni ñaa ngi wootee woote di ñëw si euh, loolu day am na ay test am na ay test yoo xam ne am na xale yoo xam ne du fay dara. parce que parce que euh, yaakaar nañ ne xale yi bu ñu leen encadré dinañ am nañ ci am daal ñooñu ñoom noonu dañuy dugg directement ci internat bi après euh, bokkul ak euh, ñi nga xam ne dañuy ñëw la partie payante bi nga xam ne dañuy ñëw andi sa doom nga fay. waaw non c'est-à-dire y a des yi nga xam ne moom lañ xool ci xale bi parce que defoon nañ fi benn benn test boo xam ne je pense que yëpp ñëw nañ.

dans le monde extérieur moi que moi que fexe fexe aller yi aussi génn dem pratiquer vraiment le football. waaw waaw waaw ñu koy parce que dans la mesure où euh, sport étude euh, bon xoolee dans le groupe dans le groupe il y a des enseignants ñi nga le volet éducatif bi nga xam moi moom moo lax booy soxla ñoom dañ koy jëlaale en compte ñoom ñooy gérer sur le plan éducationnel. di dem ci école yi di xool seen njàng est-ce que réellement boo yaa ngi produire mais ci ci loolu aussi l'accompagnement ñoom ñu accompagner parents en quelque sorte euh, fi nga xam ne parents yi nekkuñ fa ñoom ñu taxawal leen fa aussi dans l'internat dafa am ay enseignants yoo xam ne ñoo fay taxaw ñoo fay taxaw euh, pour xale yi am ay résultats yu baax dans le milieu scolaire. waaw loolu ñu ngi ciy taxaw ñu ngi ciy taxaw parce que aussi loo gis rek waxtaan la dès le début waaw début bi ci ngay ci ngay tegee li ngay war a teg yëpp. mais aussi bo xaré bo xaré ba au dernier moment day nek problème mais dès à présent xalé bu dugg am na ay modalités yoo xam ne lay duggee modalités yooyu moom la continuer mu continuer ba nga xamné parents bi euh dañ ko informer par rapport à tout ce qui se passe par rapport à son enfant mais mais mais mais aussi les contrats et tout sa loolu su suñu domaine la ñoo koy gérer ba nga xam ne ni parent bi muy parents bi muy équipe pédagogique avec tout. ku nekk na ci gis sa bopp incha allah. si si on a des partenaires partenaires yi ñu ngi ay partenaires actuellement ni parce que ñu ngi door a commencé léegi euh, partenaires yi ñu ngi waxtaan ak ñoom benn par benn euh, am nañ yaakaar am nañ yaakaar ne lii ñëw mooy daal incha allah. waaw conditions yi xaw na métti mais mais mais mais mais mais dinañ ko gérer bu soobee yàlla te ñu ngi prévoir leneen ak leneen incha allah. bien sûr bien sûr parce que aussi euh, ku lay ku sa doom di koy di ko defloo sport. en euh, euh, particulier le foot di ko topp ci école yi di ko topp ci école di xool résultat am di ko ñaax ci biir euh, milieu sportif bi di ko ñaax pour que mu mu jàng mu am ay résultats su buggee toog loolu aussi je pense bien encadrement mënu koo wees voilà voilà parce que parce que aussi dañ leen tàmm di wax ne ku amul moyen bu baax ci biir école ba nga nekk ñun du du du la mën a garder donc lu loolu loolu su su source de motivation la pour que xale bi dem jàngi man a andi résultat. waaw coach bi lépp lu ñu mën a wax mooy que ni Dieng euh, Mamadou Dieng euh, licence UEFA A la am te loolu c'est pas ah, formateur la dans tout le Sénégal formateur la fu mu dem day former. donc comme nous, nous bu à nos côtés moi je pense bien que on n'a plus rien à ndax ndax di euh, tous les coachs qui nga gravité autour de nous ce sont des coachs diplômés des diplômés euh, des anciens joueurs coach diplômés, ñi nga xam ne tous les jours te aussi c'est un encouragement pour le foot euh, mboa, mboa en particulier ah bien sûr bien sûr parce que aussi loo gis on va commencer par quelque chose mais aussi fu bëgg incha allah avec le temps euh, je pense bien lépp dina leer. incha allah maa ngi tudd Souley Diouf euh, doon membre si Petite Côte euh, académie football. waaw bokk naa si ñi ko sos parce que membre fondateur la waaw effectivement vision boobu moom la ñu am boo gisee sax tur bi moom maanaam firi na lépp tur bi rek moom dafa firi lépp parce que bu ñu waxee Petite Côte. bon boo si dolé football académie kon manam ñun bàyyeetu ñu dara ba dañu on veut ratisser large donc petite côte bi yëpp du ñu si bàyyi dara bu soobee yàlla bon man maa ngi jógee ba euh on s'est connu nak bon si milieu football mais à part lolu xamante nañu bu yàgg donc lolu yëpp tamit day day gëna nek day gëna dëgeural fondement bi rek quoi. amna na defoon nañu test euh, pour kii détection yi voilà euh, na ñu ñuy jël parce que test aussi yaatu woon na ce jour là am na ñu jóge woon sax ba ba Kédougou voilà jour boo am ñu jóge ba Kédougou d'autres qui qui venaient voilà de Kébémer ainsi de suite donc ça veut dire que euh, information bi jàll woon na nous mu intéressé Barina. mais euh, voilà ñi ñoo waroon jël ñi ñoo waroon sélectionné sélectionné ñu aussi donc teg nañu lépp ci euh, yoon. donc ça veut dire que loolu kese dafa lay wan ne donc am na fi ñoo xam ne dañ ñu ñu bari talent ay ay gone fi ne bon de 6 à 17 ans 17 ans sax pratiquement boo xoolee si booy doo ko si gis. donc da ngay calculer de 6 à 16 ans pratiquement ñoom ñoo fii ne euh, mais boo leen gisee ñooy football def ben instant da ngay foog ne sax ay professionnels ñoom nga jàkkaar lool. parce que va pas trop attendre pour di def ay année pour voilà di bokk si ay compétition ak yooyu noonu déjà projet boobu ñu ngi si euh, xam naa coach Dieng bu ñëwee mën na la si gën a yaatalal sax si loolu noonu mais yàggatul loolu moom li ma lay wax nii moom c'est bientôt voilà. waaw effectivement parce que loolu moom boo gisee sax ñe boo gisee ñooy wax football sax petite catégorie moom moo taybohole a nasional euh, tey fimu xoolee équipe nationale bu Sénégal fi mu euh, di nga football petite catégorie moom moo ko yor. donc af niñ commencé di tegle trophée yi et tout ça nga xam donc pratiquement ñu ci bari ci académie yi la donc ça veut dire que aussi di gëna dolel académie yi aussi day gëna défar suñu football national bi. wa effectivement lool mom parce que ñun aussi on est prêt à on est prêt aussi à compétir si si petite catégorie bi dañu aussi liggéey bu baax nag parce que y a beaucoup de jeunes ici euh, yu nek fi donc ñooñu aussi dañ leen di dañuy fexe ñuy participer ci petite catégorie bi euh, voilà lool mom wax deug yalla si ñu ci si ñu ci xalat bu baax aussi. waaw mais coach yi bari na mais c'est organisé aussi c'est très bien organisé parce que c'est aussi xam nga euh, li nga donc li la itam sa morom euh, bu ko tamit sa morom tamit quoi parce que xam nga mais nag ku nekk boo indee li nga xam yow di nga jàng si sa morom moom aussi dina jàng si yow mais c'est c'est bien organisé quand bon amul benn conflit entre les courses donc tout se passe bien. waaw waaw waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant aussi si si teewaay bi parce que aussi lii sport lii daf ko soxla. sport dafa soxla lii da nit ñi dee soxla tout le temps bon euh, média yi bon ça va avec le sport donc bu dee sport bi kese bu ñu ko médiatiser wul aussi du jàll. donc yéen aussi ñu ngi leen di gërëm di leen sant si turu Petite Côte Football Academy

envers la société spécialement plus daal di ñëw leen à travers le sport ñu xam ne sport bi moom moo mooy li nga xam ne moom moo gën ci xale yi nga xam dañu am épanouissement dañuy mën kaf di ree mu mun leen société bi léegi nag ñun nag dañoo ñëw nag par rapport à ça dajale leen di foo ak pour ñu xool naka lañ leen mën a jëlee dugal leen ci biir société ba nit ñi mën leen a considérer daal. yombul yombul yomb na yombul parce que ça dépend parce que parents yi mën nañ ko accepter su parents yi accepter rek ñun on vient comme des volontaires ay volontaires volontaire lañ di xam gox bu nek région bu nek dinañ jéem jëm former fa ay nit ñi nga xam ñom ñoom ñoo leen war a encadrer ci kaw encadre encadrement bobu na dañ leen won naka lañ koy défé naka lañuy doxalante ak ñom ba nga xam dañ ci gis seen bopp yëkk seen bopp ba nga xam parents yi dañuy mën a am ben genre autonomisation en travers la famille dal waaw dañu ñëwoon nak fi nak ci Mbour nak di préparer ben compétition ba xam ne Ndakaaru fu ne infrastructure dafa amatul dara amatu fa te gis nañ ne Mbour jig nañu 2015 ñëw nañ fi 2019 ñëw nañ fi ñu ne pourquoi 2023 ñëw fi pour mëna gëna mëna am ay médailles ñëw tok fi def fi suñu préparation machallah allah gis nañu infrastructure amna fi ñu fi def fi suñu préparation def fi suñuy ay match yo xam match amicaux def ci ay entraînement athlétisme def fi euh, ñu koy ay pétanque def basket def euh, natation yooyu yëpp daal ñu mën ko préparer wu fi ci moo te xam infrastructure yi daal moom moo ko euh, jooyee moo tax ba ñëw fii mën cee gën préparer wu. jërëjëf yëngu kese kassa foal seen dañuy def sport duñu wax sport de type olympique sport yi nga xamné sur le plan olympique yi ñu mën a def ci sport xeet xeet yooyu yëpp ñu dañ koy pratiquer mooy nag si 2023 war nañu dem Berlin pour mun a préparer pour mun a def ay championnat du monde mooy kon dañuy participer ci football ci athlétisme ci équitation ci pétanque ci natation ak basket. yooyu yëpp dañ ca war a pratiquer natation yëpp dañ ci war a pratiquer ci juin 2023 mille vingt trois fële ca Allemagne ca Berlin moo tax ñu ñëw fii nag tey ak euh, Mbour Petite Côte fii nga xam ni seen équipe bi gën a mën a préparer parce que ñoom gis nañu seen xale yi dara amuñu laago amuñu dara ñu mun leen affronter pour mën a jouer ak ñoom ay matchs amicaux yu bari yoo xam ne dañuy mën a natt suñu bopp par rapport à ça loolu moo waral suñu teewaay fii ci ci ci terrain ci terrain terrain municipalité bi. waaw macha allah alhamdulilah euh, ministère des sports mu ngi accompagner par rapport. rapport à ça mi ngi ñu siy jàppale bu baax nag wax dëgg yàlla boobu ba léegi nag seen délégué yi ñi ngi ñëw chaque jour di ñu nemmeeku di laaj ba xam condition yi baax naag yooyu yëpp daal vraiment ñu ngi leen ci sant bu baax parce que je crois que ne euh, du ma ne c'est une première mais kii wax dëgg yàlla lim ci def nii moom euh, wax dëgg yàlla def na ci def na ci loxoom daal vraiment ñu remercions le ministre la Yankhoba Diattara nga xam ne teg na ci loxoom daal bu baax daal euh, ñeneen ñi daan nañ ci teg seen loxo nag waaye moom mi loxoom bi mu ci teg nag wax dëgg yàlla nag macha allah yëg nañ ko yëg nañ ko yëg nañ ko daal waaw loxo bi moo gën a yëg nañ nañ ko daal macha allah yëg nañ ko daal vraiment ñu remercier par rapport à ça euh, les parents yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy euh, di confier seen doom di leen wax ñu sàkk ñaan di wax population ñu jàppale tamit si ñaan parce que seen i doom ñi ngi ci ay ñuy wax ñoom Armando ñoom euh, ñoom ñu bari ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci équipe bi nga xam ne Mbour moo dañ leen sélectionné à partir de sur le plan national kon donc vraiment ñi ngi sàkku seen ñaan ñëpp ñaan ba xale yi mën a ëndaale ndam daal Babacar ñu lay fay waaw xëy na nga nga projet moom boo ko non damay profité sax nuyu waa population bourgeoise bi yëpp donc euh, di jégalu aussi ci gëj gise bi aussi profité ci weeru koor bi aussi di balu ñëpp ak di baalu ñëpp ak ñëpp ñëpp ñëpp aussi di baal ñëpp ak di ñaan yàlla defal ñu kooru jàmm donc nanguñu jam jaamu yàlla nanguñu suñu koor te lépp luñ ci def ci lu baax rek lépp luñ ñaan lu baax yàlla ko yàlla nangu

donc ça veut dire que après man bima ma laajee pratiquement projet bi la mom la mom la mom la finaliser finalisé woon moom laa moom laa posé woon. terewul aussi on a cheminé fenen on a travaillé ci club bi nek nak di profiter aussi li di euh, nuyu waa Mbour di remercier club Mbour yépp mi stade de Mbour mi nga xam presque moy sunu club club bu xol ñëpp xam nañ ko ndax ci lañ juddoo ci lañ maggé ci lañ yaro donc Mbour Petite Côte Touré Kounda donc euh, euh, président Mbaye Diouf Dia Mbaye Diouf Dia hmm, Kër Madior Demba Diop club yépp dal yépp yépp salisport Club. Ngaparou donc fi nga xam nous fépp ñun jaar nañ fa ñu ngi profité remercier confiance à ñu amoon donc expérience je pense que c'était un <coughs> apprentissage accueillir nañ expérience donc pratiquement on a fait 10 ans ci depuis 2012 apparemment plus de plus de dix ans expérience positive expérience négative Et actuellement dañ ko bëgg capitaliser raison pour laquelle on avait un projet boo xam ne ñu un ko de waxtaan muy euh, créé une académie bo xamné au niveau de Mbour likay koy tax euh, former des jeunes former des jeunes euh, sur le plan sportif sur le plan éducatif sur le plan social ak ci ak domaine yu donc motax tax biñ ci waxtané ak suñu xarit ak pourquoi pas ñu mettre en rapport ñu ñu mettre en application té aussi donc moo tax fi ñu toll championnat beeg lépp kenn kenn gis gisatuñu ci ñu ngi toog ci xale yi di liggéey nag di ñaan yàlla yal yàlla barkeel liggéey bi rek. je pense que xëy na am na lu ma fàtte sax mooy sama expérience bi ma am ak waa PG Académie Sénégal di profiter les nuyu bu baax a baax a baax di nuyu di nuyu di nuyu l' administ les administrateurs apparemment euh, euh, confiance bi ñu amoon ba ba jox ba dénk ma seen académie maa ngi leen ci remercier bu baax. donc booy xool c'est un projet boo comme comme li ma la wax projet du tàggane da ngay ñëw rek euh, ab appliqué mu dem booy xool au début avons commencé lancer euh, euh, académie bi dañ ko lancé ça nous a permis ñu am ay réponses positives ci réponses positives yooyu moo ñu permettre ba faire ñu toll nii ñu def ay tests tests on l'avait fait durant le mois de janvier passé

Euh, Ngaparou Somone euh, Guéréo donc c'est ce qui bi nga biñ ci ratissé tour on voulait élargir large donc si Bill jël bi ils habitent en Casamance ils habitent à Saint-Louis ils habitent Fonec donc tey les li tax ba léegi l'académie, ci académie euh, ils ont un problème de logement comme ñun ren étape par étape comme li nga wax on a mis en place d'abord l'académie sur le plan externe les gens s'entraînent après ils rentrent chez eux donc si xool ñi fi dëkk ñëpp dëkkuñu dëkkuñu mbuur sax mais euh, mbuur moo ci ëpp ak ñoo xam ne am nañ ay parents yu dëkk mbuur wala ay mbokk yu dëkk mbuur donc bu déwénee aussi euh, euh, dañuy continue continuer si même ligne bi si si même signal bi rek externe naa lañ démarré pour as pour asseoir nos bases ba nga xam ne léegi ñu bañ a bañ a yàkkamti donc comme externe bi ñu ngi si gis réussite macha allah bii di ñëw internat bi day ubbi donc internat bi bu ubbee dafay am sport étude am ñoo xam ne nag sport kese la ñuy def.

dañ naan ah, sama sama doom daal dafa may sonal kër ga xaar ma yóbbu ko ci internat bi wala sama doom daal kër ga bu fa nekkee du jàng wala lii xamee wuyu daan déedéet donc ñun booy dugg dafa am papier yoo xam ne moo ñu lii ak yow donc suñu objectif ñun académie bi ak parent bi lu mu lu ñu dénk doomam dañuy xam ne ñun mooy ne ci formation lañ nekk te formation bi duñ ko duñ ko wàcc euh, moo tax bi nga bi ñu commencé nii lépp lu ñuy def on insiste tout le temps sur la formation match yu ñu joué nii des fois da ngay joué match ñu doon la 10 0 xale yi xaw a nga nga ñëw wax ak ñoom leen eh c'est bien li ci am solo moy le contenu ñun nous sommes en formation nous ne sommes pas en compétition xëy nak buñ bu ba am ben stade bi xam ne euh nek na suñu bop wala nek na suñu objectif dinañ ci mo a mais actuellement ni ak parents yi la formation éducative la formation sociale et la formation sportive loolu moy suñu principale mission fiñ toll. waaw xëy euh, duma la neub relever défi bobu euh fi ak fi ak nañ ko app fiñ toll fiñ toll fi ak fi ak 10 ans.

donc euh, dinañu permettre ñun aussi ñu waxat ci bu keroogee nañ mëna taxaw fi jàmbaar tankam fi génération fi tek tànkam wala fi Dakar Sega tek tankam wala ak ñeneen ak ñeneen sur le plan africain ay académie Mohamed Mohamed Cinq yu Maroc ñun aussi dinañ ci mën a teg tank mais pour l'instant ni on se focalise sur mettre en place nos bases hein ba nga xamné nañu permettre ñu baña ñu baña def erreur ndax amon na académie yo xamné ne juddu nañ fi judd bi yagul ndax lan ndax gaay yi dañu xawoon yakamti mais ñun mom lañu def nous sommes en formation nous ne sommes en compétition avec euh, euh, aucun club ou aucune académie donc voilà je pense que comme nous nga fait 10 ans nous rivaliser ak participé, actuellement comme comme euh, nous sommes en collaboration avec en partenariat avec des clubs. Les clubs ils sont en Ligue 1 ils sont en Ligue 2 ils sont en division nationale, ils sont en nationale aussi Nous permettre ñun comme par exemple comme nos meilleurs éléments. Hein, on, va les mettre à, l'exposition à, disposition de ces clubs-là si c'est partenariat ak ñoom mu permettre suñu nga éléments yi ils vont contribuer sur le plan national éventuellement s'il y a des solutions nationales yoo xam ne ubbeeku aussi nous nañ ci permettre ñoom aussi ñu gis ñu ñu ñu ñu bokk ci ndax euh, euh, c'est pas trop important nga jël xale boo xam ne sur le plan international il il il peut faire valoir ses qualités nga téye ko ci académie bi sans mu compétir amul benn sens. non du compliqué xam nga xam nga du compliqué je pense que yow yow xam nga ni ñun euh, am nañ am esprit d'initiative tey les lii koo gis da nga Dieng dafa am ay partenaire dafa am euh, xaalis walla non amuñu dara yàlla xam ne billaahi wallaahi amuñu dara yow xam nga baax eh, non yow xam nga li am lan la mooy mooy esprit d'initiative ak aussi on a on a les ressources ku mel ni yow ku mel ni sa caméraman donc ak ñeneen ak ak sànq ñi ku mel ni spécial olympique ku mel ni partenaire yi nga gis ñi nga gis sànq foofu ay Moussa Ndiaye ay ñeneen ak ñeneen ay sama xayit ñoo xam ne dañ ci waxtaan ak ñoom waxtaan bi mooy mooy lan mooy

bu ñu xoolee xam ne xëy na say xëy na sax yow loolu danga ma cee bett ndax dugal nga ma ci <laughs> football Mbour xam naa di nga ma jàpp <laughs> mais football Mbour moom ñun ñëpp dañ ci am pal comme yow comme ñëpp je pense que mu nekk loo xam ne ñun lépp lu ñu am rek Mbour moo ñu gënal lépp lépp lépp lépp donc ba tax na tey jii euh, dix ans pas dix ans cinq ans yi passé football ne moo nekkoon ci kaw en 2017 je pense que ñëpp xam nañ lool yéegi yéegu Kër Madior stade Mbour euh, jël coupe de kële euh, euh, jël coupe euh, waaw coupe de la Ligue Mbour Petite Côte jël coupe du Sénégal donc ñep mais bo xol tay fiñ ñu toll nii le cas contraire la ñuy gis donc xëy li ci li ci man de sama fi ma fi ma koy teg mooy sur le plan sportif sur le plan des infrastructures sportives ndax les terrains ben terrain mo fi am te terrain yi entraîneur yi jooy nañ ko moy lan da ngay ñew tu fais 1h30 ngay def par jour au moins si ay séances yo xam au minimum ça devait durer 2 heures donc sur le plan sportif si loolu tey si mën am impact sur le plan sur le plan des résultats xëy nak peut-être amna na yo xamné xam euh, club yi ñoom seen biir ñom ñom ñom ñom nañ ci mëna wax mais ñun ñi xamné fiñ toll comme nous nous sommes un peu en retrait liñ ci mëna expliquer rek mooy euh, na na autorité yi gëna jappalé club bu Moy yi dotal leen des infrastructures sportives yo xamné ne gis ngeen biñu amé amee Caroline Fay mi mi bees football Mbour mo nekkon ci kaw ndax lan y avait la qualité de la pelouse qui offrait qui nous offrait ça mais fiñ toll ni amuñu lolu donc euh, te en plus mën nek handicap handicap ci résultat yi ben bi mooy euh, euh, mooy faire confiance aussi aux jeunes suñu né aux jeunes man waxuma ñi dëkk Mbour rek moy tay waxon naa la ko sa plateau moy ñun dañoo am tendance ñun les entraîneurs à faire jouer que des des des joueurs yo xamné de nom alors que tay bu oui les célébrités alors que bu bëggé am euh tay un Mbappé ou bien un Sadio Mané à part de 16 ans mu équipe nationale mais ñun ça doit commencer par nous au niveau des entraîneurs ñu avons am confiance xalé yi jox leen seen seen chance ñu mëna prouver mais chaque fois buñ né ah xaar ma dem jëli euh, euh, sama ben copain rek euh, comme comme Luuj dañu dem jëli Luuj ndax nekkoon ne Stade Mbour mu ñëwaat wala mu ñëwaat Kër Madior wala mu ñëwaat fenen. donc je pense que euh dina nek lo xam da fay pour xalé yi fën la day pourtant si on leur accorde la leur chance ils peuvent faire plus que ça Et en plus ils peuvent nous valoir des certifications sur le plan sportif et des certifications sur le plan économique et sur tous les plans et sur le je pense que c'est une référence bi nous ñun ñëpp tey fi tey fi la donc euh, voilà ndax ñi ko yoroon dañ confiance boobu nga xam ne tey euh, il, il, il, se sent un leader sur le plan technique et, sur le plan, et, et aussi sur le plan technique. Bon, c'est satisfaction sur le plan individuel au Sénégal aussi, sur le plan collectif aussi. Je pense que si on a non, on a confiance, on a confiance. Wow, tay gis nga boy xol ñi fi nek damay profiter rek euh remercier ku melni Koulibaly aljuma Koulibaly buñ ko waxé mbour yo xam nañ ko donc mo nekkon mo nekkon prépa euh ancien goal stade de Mbour international nek nek aussi préparateur physique préparateur gardien aussi tay ku melni Aliou Aliou Sow mi ngi dëkk Aliou Sow mi ngi dëkk Grand Mbour avenir donc moi aussi euh, c'est un technicien qui qui nous accompagne Euh, amna aussi euh, Lamine Anne donc mi ngi dëkk Diamaguène c'est un technicien aussi qui nous qui nous accompagne aussi sur ce projet tey aussi amna ñen ñeen ñoo xam ñi ngi waaj ñew, te bëgg nañu ñew. donc ñi ngi lancer appel si ñëpp donc euh, liggéey bi simple na on a affaire à des jeunes donc li ñu amal solo nekkuñu en compétition nous sommes en formation xalé xalé mom bu ñëwé entraînement yow yow gis na ko tay xalé bo fi indi entraînement mu ñëw té limuy def amu ci plaisir té jëlewu ci plaisir bu ñëwee bu suba bu ko waxé démal académie académie petit code full Académie danaan du ma dem na foofu bo démé ñom jeen dañ lay dawlo rek té gis nga fi ñun on met l'accent toujours sur l'aspect technique xalé bi bu amé plaisir rek je pense que après le reste day yom fi mom euh, euh yëfu yëfu waa Mbour la yëfu waa Mbour la yëfu waa départ yëfu waa département de Mbour la yëfu waa petite côte côte côte bi la donc képp koo xam ne mën nga ñu apporter un plus rek euh, ñu ngi lay ñu ngi lay a suñu loxo di la ñaa di la wax boo ñëwee rek euh, nga nga nga dal jàmm bu a na ñàkk ndax xamul tax tey lii bi ñu koy taxawal ni sëñ sëñ sëñ Saliou ñu maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy nuyu di ko remercier kooku moom mën naa la man sama référence la moom xam a ko sax moom xam na tey loolu mu nekk maa ngi moom ñoo ci euh, excellence xëy na bu ñu koy ngi commencé tout le monde Mbour excellence donc tey ku mel ni Ibou je pense que tey gis nga ñun lu ñu organisé moom moo ci njëkk taxaw du sax xaar du sax xaar mooy mooy borom Mbour Mbour Sport Académie sëñ Saliou mooy Mbour excellence donc ñoom duñu ñu ci dara ñoom automatiquement dañuy dañuy ñëw teg sa loxo donc foofu ñun am nañ benn link boo xam ne loolu sa waay di def sa morom da da ko siy jàppale donc foofu euh, suñ nee concurrence ça sera une concurrence saine mais c'est nous dans ndax ñun ñëpp tey jii on a eu la chance euh, sëñ Saliou tey mën naa ne su ma ñëwee mbuur bay coacher bi ko tan seigne Saliou c'est grâce à seigne Saliou ndax ñoom moom moom ñoom ñoom njëkk a confié euh, en 2012 kooku mënu ma ko fay Ibou Ndione on a eu on a eu la chance en 2007 on a travaillé avec Stade Mbour be Stade Mbour di jël coupe de la ligue on a eu travaillé ensemble donc je pense que c'est ce sera une conduite rek ñun ak ñom ay la main dans la main je pense que ñun ak ñet académie yi fay nek mën nañu relever défi yo xamné tay mën na mëna a jaaxal ku nek donc tay inshallah allah rabi on va on va on va nous sommes en train ñi ci ciy te incha allah dinañ ci gën a waxtaan ba nga xam ne lu waay teg rek ku ko mën jàppale ak teg ci loxo rek da nga koy def bu soobee yàlla. waaw ñi ngi ci ndax euh, ndax démb rek maa ngi profité aussi di nuyu euh, le le doyen Mbaye Dabo conseil technique départemental ak ak le président Mame Malick bi nga xam ne mooy sunu président district. donc semaine passée ñu ngi wax par rapport à la par rapport ak sélection U20 donc bu ñu nee sélection U20 mooy sélection départementale Mbour donc euh, xëy na man man maa yor dañuy permettre comme nous ma waxoon sànq rek ñun on a on n'a pas encore eu cette reconnaissance fédérale moo tax dañuy liggéey ak club yi liggéey liggéey ak club Ligue 1 national 1 jël suñu joueurs yu bax yépp jox leen pour ñu permettre ñom ñu am visibilité bokku ci compétition yoo xam ne fédération fédération dina ko organiser. donc fofu fofu aussi na permettre euh suñu joueurs yi aussi ak joueurs yi ci club yi ñu mëna bokku ci sélection yi mëna rivaliser sur le plan national et aussi mëna rivaliser sur le plan international aussi. voilà je pense que lool amna solo ndax xalé bi am bac ba nga xamné fiñ fi ñu toll li ko dese rek moy genn euh tay bo xamné tay tay Mbour béy aussi xalé yo xamné am am nañ am nañ bac ils continuent leur formation ici D'abord, booy xool école supérieur au niveau de Mbour au niveau du département ñun aussi nous avons bu ba am cas yu mel a des ci partenariat la branche choisir communication sport euh, euh, management.

je pense que yaa ngi def liggéey bu am solo ndax euh, tey mi ngi nii nga déplacé wu ñëw fekk ñu fi ñu suñu milieu d'entraînement euh, dañ koy rafetlu di ñaan yàlla li nga bëgg sa xol yaa xam rek ak ak ak télé bi ngay liggéeyal yàlla leen yàlla yëkkati ba ngeen dem ba ca kaw a kaw kaw je pense que yow partenaire bu xam ne ñun moom dañuy dañuy rafetlu di def ay interview wala di waxtaan ak yow ci ci wàllu sport je pense que dañ ko rafetlu beneen bi mooy dañuy lancer appel rek waa Mbour na leen ne amna na académie yu fi yu fi ubbi yu fi ubbi je pense que muy ñun muy Petit Côte football académie muy Mbour Excellence Foot muy Mbour Sport Académie donc euh, nañ leen nañ leen jege dénk leen seen i xale waxtaan ak ñoom posé leen ay li nga xam ne seen doléance ndax après li liñ ci gëneew rek mooy ñett yëpp li ko tax a jóg mooy mission éducative mission sociale euh, mission sportive ndax après li ci am solo rek retombé rek ngëneel ngëneel lépp mooy euh, li dañ leen wàccal yenn coono yi ndax ki dem ba jël li nga xam ne moo gën a seer si yow si moom mu jox la ko rek kooku tey de de deseetu la dara li nga mën rek mooy nga téye ko ak fukki loxo je pense que ñi ngi lancé appel waa Mbour yëpp di leen wax ne euh, Mbour Mbour Petite Mbour euh, Petite Côte Football Academy ubbi nañ seen bunt ku ñu soxla rek mën nga ñu joindre si numéro bi 70 332 60 incha allah. aussi ñi ngi ci réseau yi macha allah di profiter rek di la remercier baax a baax. merci Babacar.